ji bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang gannaaw nag ba mu fas yéenee jàkkaarloog juge bi en avril waaye bi lay yoon di jàpp ga ñu ko mujjee jàpp ci Sébikotane mais juste diffamation boo xam ne defoon na ko ci ministre bi di ak ki nga xam ne moo di juge ba niki avril gii démb la ko jàppoon waaye ba ñu demee nag xam nañ ne rek mënut a am ndax ki nga xam ne moom moo ñeel wàll wi di partie civile bi Cheikh Oumar Anne moo indisponible loon ko ba weeru avril la waral lu ni mel nag xam ne moom moo ji OFNAC ak yeneen ak yeneen yu mu daal di teg ci kawam mbirum Pape Alé ak wàllum justice dafay mel ne saa ne rek day bëgg a miin mhm. naa table ci Sénégal la mhm. gis nga Pape Alé Niang est un journaliste d'investigation teg ci journaliste parce que xam Pape Alé Niang journaliste la woon mhm. journaliste bu simple boo xam te day ñëw informé nangam joxe information yoo xam ne kii journaliste la mu légal nekk ci nekk nekk ci maison de presse bu mag mais dafa def ba ci biir nekk un journaliste d' léegi la ma waral mu nekk d euh, ministre euh, journaliste d' journal d' kenn bañu ko mm-hmm. réew moo dem am na journal d' investigation Pape Alé loolu la opté parce que journal d' mooy ki nga xam ne moom mooy euh, magu yi am ci réew bi mu koy génne askan bi di ko xam mm-hmm. te loolu aussi tamit askan bi dañ ko war a xam di gëstu laata muy c'est-à-dire loolu servir sa population la. te xam nga wax naa ko fi sànq am na ay patron de presse yoo xam ne ay journaliste lañ ci waxum mais dañuy gis loo xam ne tey mun na yàq Sénégal nga nga dëgg. ci tànk ñu jox la benn dëgg gi nga dëgg ci tànk. dëgg nga dëgg sa tànk ñu jox la benn manetu xaalis nga jaay sa ngor. Mhm. Pape Alé Niang il a il a il a beaucoup de propositions. Mhm. Mhm. il avait reçu il a reçu ba tey mi ngi man lu ma leer ay leer mi ngi recevoir ay ay propositions yoo xam te aussi tamit bu bu teggee tànkam war na mën a euh, nekk nekk nekk ku stable. juste pour voilà kon tey ci nga xam ne tey dafa euh, dafa opté pour informer population bi li nga xam ne moom mooy dëkk gi mais quel est le problème Ousmane euh, comment dirais mais li mu wax yëpp c'est des c'est c'est la vérité. Mm-hmm. Hmm? donc comme li ma waxoon démb rek juste dañoo am justice boo xam te ne justice la ñu maturité bi ñu war am dëgg-dëgg ci wàllu justice amuñu ko il faut aussi tamit ñu am ko mm. c'est le Sénégal kon tey bu ma bu bu bu bëgguma justice boo xam te ne aussi tamit day am ñu leen di conditionné ñuy def mm-hmm. parce que tey bu yàggul euh, ci ci suba rek la ñu la ñu informé que nit dof police ngi ci police nag lu wér la wala lu wérul mm-hmm. mais gis naa plus de cinq pages yoo xam te ne ni posté nañ ko nit dof police wàcc na ci ci këram te pourtant nit dof li mu wax c'est c'est c'est c'est c'est vrai. ay live ay live la doon def di wax loo xam te aussi tamit wax na a def jaar fu ñaaw ne papaam jurul koo xam te day nekk esclave ci réewam mhm. te li xam na la problème Sénégal nañu bàyyi loo xam te ku wax dëgg rek ñu jàpp la. Ah, te loolu day taal réew mi. day tax jeunesse bi siisu. Mhm. tey jeunesse bi dañoo toll ci jeunesse boo xam ne dañoo sës xam nga tey kii dem ci géej di dem mu leer na ko yow dem mu leer dem bi ngay dem wóoru la ndax di nga ñëw di nga di nga la moo ëpp loolu fit te jeunesse bi maanaam fit googu jeunesse boobu amoon ñu ñu ñu leen ëpp fit fu mu toll ñoo toogaat ci jeunesse am na ñoo xam ne day fu loo rek dëkk bay metti dëkk bay tàng te il faut que ñu ñi nga xam ne ñoom ñëw téye justice su Sénégal ñu bañ a taar réew mi nañu bañ a taar réew parce que ay famille jàmbur ñoo ci nekk ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo géré wàllu justice bi ñoom ñoo nekk ci kaw mu mu ñi nga xam ne ñoo géré nguur ñi nga xam ne ñoo téye Sénégal ak seen i njaboot tey fu mu toll nii réew mi bu ñu ko taaloon seen i njaboot duñ ci mucc. Mhm. kon nañu may tëdd ko di taal réew mi. Pape Alé Niang est un journaliste. Mhm. laisse le faire laissez le faire. a def mu def ko. métier mu doxal ko ci ni mu ko war a doxalee. Mhm. tooñul kenn fi mu toog la toog information yi nga xam ne Pape Alé Niang moo hmm, la de. Pape Alé fu muy jëlee sources yi nga xam ne moom lay moom fu muy jëlee information yi nga xam ne moom lay jox population bi. c'est parce que c'est vrai Pape Alé Niang mënul nekk Mhm. donc am na yoo xamante ni c'est-à-dire gis nga Sénégal. parce que moom moom sax Omar mi ngi dikkaat ci li tax ñoom ñu xam ne euh, ay vérité lay wax li muy wax yëpp ce sont des propos des des la véracité de ses propos moom nee saa suñu ko jàppee la ko jàppee sax bu paree duñ ko ko toppee mais leneen la indiwaat pour toppee mais xam nga loolu problème bi mooy mhm. da jàppee ni ci loo xam te ne juste pour pour pour pour pour ko rek mhm. da nga jàpp ko xam ne kii li nga ko jàppee bon la. Mhm. nga bindloo ci ay paie mais Pape Alé Niang boo ko jàppee lan nga koy lan nga koy jàppee journaliste la. Mhm. boo ko jàpp Pape Alé Niang boo ko jàppee ci biir liggéeyam la lan lañ ciy xam nga tey Ousmane Sonko tey bañ ko jàppee par exemple ci affaire de viol bañ lay wax xam ne viol bi amu ci dañ cay yokk ay trouble trouble à l'ordre public rébellion <laughs> ay rébellion yooyu lañ ko ci yokkal te yooyu c'est pas du c'est pas sérieux nañu wax dëgg Sénégal sérieux nañu suñu réew mi <laughs> mais xam nga suñu réew bi du du du du plan. du plan de. du plan bu ñuy kii di di xool di teg di teggi plan bi bu ko defee suñu réew mi ko defee nii dépassé na plan. ñu ngi sonal ay ay ay 4 4 2 mais mais Omar mais Omar bu ñu jàppee réew mi plan. mais Omar gis nga nit bu fekkee yow ci dëgg nga ne yow mi nuy waxal boo nekkee ci dëgg buñ la waxalee ñi lay tontul sax yow doo ko xam boo nekkee ci dëgg comme man man nekk naa ci dëgg. nit di ma waxal loo xamante ni moom li muy wax amut li muy wax leeru ko donc ñeneen ñi dinañ ko tont dinañ ni ko yow lii ngay wax ci kii amut mhm. mais bu nit waxee dëgg nga jàpp ko wala bu nit waxee dëgg nga ne ko dem ci tribunal donc kon yow liñ lay waxal bu fekkee buñ lay jiñ dem da ngay liir tamit day metti mhm. donc bu fekkee ñoom li tax ñu koy woo noonu noonu noonu te ñin war a woo bari na bu fekkee wàllu wax la rek ñin war a woo bari na ñaata milliards nga dégg ci réew mi anamu barki Dembo Ndiaye euh, Burkina Faso waa ji soixante douze heures la may gars yi mais vingt quatre heures ñu indi deux cent onze milliards teg ko ci taabal ji mu wala ne xaalis bi mi ngi ci réew mi te Omar dama ko wax démb ni milliard pour nga am ko daa jafe mais léegi da ngay gis ku xëy am milliard. Mhm. te Sénégal ñu ngi fi am problème faj. nanu mhm. dem ci hôpitaux yi xool affaire yi faj ko. moo gën ñuy wax dalal jàmm bii su suñu wet problème bu magtee fi am. Mhm. donc nanu jël réew mi xool point yi nga xamante nii lu nu war a lijjanti la fi nit ñi di fajoo fi nit ñi di lekkee fi nit ñi di dunde fi nit ñi nga xamante ni ñu ngi fay jàngee. ñu jox leen ñu dugal fa milliards yi pour nit ñi am jàmm ak salaam mais pas ñu nekk ci Sénégal boo xamante ni am njaay joxal jóob am Sonko joxol Souleymane Faye maanaam dinu ñu sonal quoi ñun population bi donc ñoom ñoo gën a xam li ñu war a def ñun du nekkul ñun ñoo leen koy wax xam nañ ni ñuy def bu baax te nag dëgg mooy njëkk mooy mujj Baye Fall billaay wallaay nanu régler réew mi ñoo ko mën a régler ñun bu fekkoon ñun ci ñun la des ah, bu fekk bu desoon ci ñun ñi population bi mhm. régler réew mi régler woon bu yàgg ndax ñun koo ci gis ñu ngi ba mais réew moo xamante ni matul 4 matul